xam ngeen li ma fi indi euh, samay waxu démb moom lañ ma fi indee mais puisque dossier bi dafa nekk euh, en instruction li ma leen ko waxee woon bu rek je suis un homme respectueux des institutions j'ai été un ancien ministre un ancien président de la commission un ancien premier ministre mënuma lu dul dëggal loolu ci sama parti dëggalaat loolu bu ma génnee mu nekk sama doxalin ak sama defin ak sama jëfin ma bëgg di respecter toujours kàddu boobu moo tax dossier boobu bu ngeen ma ci waxee du ma ci mën a wax li ma mën a wax nag mooy ci Sénégalu tey Sénégal ñëpp am nañ njaqare njaxare ci li xew te musula xew ci sunu réew mooy ay doomu ndey bokk ndey ak baay ay forces de défense et de sécurité nga xam ne sunuy doom lañu sunuy rakk lañu sunuy frère lañu ay sénégalais yeneen yi nga xam ne ñoo ñooñu ñoo bokk ñooñu di jàmmaarloo ay jàmbur sax mun naa ne mën nañ jóge sax bitim réew dugg ci loolu di def lu ko sulul noonu loolu yëpp nit ñëpp xam nañ li ko waral te man samay wax duma ko nëbb président makki Sall moo ko waral parce que nit boo nekkee njiitu réew da ngay am courage am dal am tekk bañ a déglu ñi nga xam ne traversé nañu pouvoir yëpp di la xelal dóoral jàppal force restera la loi il faut faire ceci ba nga xam ne li nga xam ne sax moo doon essence su réew ñu nawoon ñu ci ndax président de la commission la woon yore woon huit pays muy ay journalistes waruñu leen jàpp ay ñii waruñu leen jàpp léegi gis nañ yooyu yëpp ci sunu réew du ngeen fi nekk tax moo tax ma koy wax mu nekk lu ñaaw ci sunu der lu ko waral politique bu salte bu tilim bu kenn xamatul bu kenn xametul ñun bu ñu nekkee sax opposition ak pouvoir ay doomu ndey lañu ñoom bu ñu amee lu leen naqari man damay dem di jaale yi ñoo xam ne ci pouvoir bi lañ bokk bokk ak ñoom seen naqar man bu mu nekk saalika su ma nekkee ci suma naqar dama leen di gis wante pouvoir est-ce que jar na ngay seetaan sa réew muy suux nga bañ a taxaw wax ak sa peuple nit da ngay am fit am courage bu méttee nga bës sa xol ndax yowul la jox comme nga nekk président bu la joxee nga nekk président mooy président de tous les sénégalais aujourd'hui bu génnee wax ci sa kàddu la wax ci sa kàddu la seen kàddu la wax sama baat la yore alors loolu nag soo ko yoree dangay xam liñ lay yox bu mettee nga bës sa xol parce que borom kër da ngay bës sa xol li la neex ak li la naqar yëpp nga teg ko fële te xool sa réew très sincèrement depuis ñu indi ci affaire yi ci police baak ba fii mënuma ŋaañu justice sama philosophie la pouvoir yi dama leen respecter parce que c'est constitutionnel la seule chose qu'on peut fustiger c'est que un président veuille ne pas déférer je dis bien déférer à l'indépendance des pouvoirs qui sont dévolues par notre constitution mais li reste yëpp comme ni ma la ko waxee bañ ma jëlee ci lii ba léegi gisuma dara lu ma mun a ŋàññi ñi ma yore woon fanaan naa fa gaañ gaa mais ba may dem di fanaan it xamoon naa ne damay fanaan sama doom a ngi fi ci suba sa le matin laa ko wax ne ko jëlal ma benn valise nga def ci suma yére sama pyjama defal ma ci suma brosse defal ma ci euh, sama rasoir parce que bu ma yeewoo il faut ma rasé defal ma ci benn euh, kii euh, drap ba ma ñëwee ñu ne ma da ngay fanaan ma ne d' accord. ma risque yooyu noonu. risque yooyu naa ko parce que man je suis un homme qui prend ses responsabilités. j'ai toujours fait ça dans ma vie c'est ma vie quand il s'est agi de prendre mes responsabilités. en tant que fonctionnaire je l'ai fait su ma leen ne ba fi may wax ak yéen la seule décoration que j'ai eue de mon pays est venue du président Abdou Diouf boobu temps xale laa j'avais trente et quelques années j'étais directeur du budget qui m'a décoré depuis ce jour je n'ai cessé de prendre mes responsabilités et je continuerai à prendre mes responsabilités parce qu'il s'agit du devenir de nos enfants il s'agit du devenir de nos petits-enfants Il s'agit du devenir du Sénégal pour lequel nous, certains son prêts à donner leur vie. Les forces de défense et de sécurité, sincèrement, moi, mooy lan ñoo ñu mun a ñàkk seen bakkan pour seen réew. donc moo tax li may ñaan mooy ñu apaiser wu moom su buggul apaiser wu sax ñun nañu apaiser wu woon ko beneen doxalin. mooy doxalinu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay force de défense et de sécurité yi ñu def ndànk ñi nga xam ne ñoo nekk ci kuje politique yi ñu def ndànk parce que des deux côtés man wax dëgg rek laay def des deux côtés il y a des donc ñun nañ toog ci suñu biir ñu waxtaan. keroog woote na fi waxtaan. waxtaan boo xam ne da nga woo ñëpp ñu lay tàgg di la nangam ak nangam ak nangam loolu waxtaan la. Euh, mais li ci mën a génnee président moo yore la clé pour nous sortir de ça c'est ça la vérité. si vous faites référence ak procès Sonko defuma référence ak procès kii wala clé dama ne Sénégal pour mu baax il faut que ay doomam waxtaan pour ay doomam waxtaan il faut que ñu waxtaan dans la vérité. Il faut que les gens soient sincères dans ce qu'ils font. Mais quand ils font des choses pour empêcher ou pour, pour, pour créer des problèmes à une autre personne, quelle qu'il soit, quelle qu'elle soit, je ne suis pas d'accord. ndax jàpp nga dialogue bi nga xam ne doon nañ ko ndax loolu jàpp nga ko. dama leen wax naa ci dialogue bi ba pare nee naa la man dialogue boo xam ne nga ngay ñëw pour ñu tagg la bokkuma ca. Mhm. en français s'il vous plaît. dégg nga li ma bëgg ce que je veux un dialogue sincère un dialogue sincère où les gens sont venus sans arrière-pensée. tout le monde sait aujourd'hui que les grandes guerres se sont terminées où Pas de négociations. Est-ce que nous sommes en guerre Nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en conflit politique. Et quand on est en conflit politique, il faut que celui qui est dépositaire, je dis bien dépositaire, du mandat des Sénégalais par les urnes, en l'occurrence le président de la République, c'est lui qui doit savoir qu'il est le président de tous les Sénégalais. C'est lui qui doit avoir le courage de ne pas écouter les gens qui lui disent prenez celui-là, prenez celui-là. Moi, ma personne n'est pas importante. On m'a mis dans cette situation, ça me fait ni chaud ni froid. Vous comprenez Mais le problème, c'est le Sénégal et les Sénégalais. Nous sommes en train d'aller vers une dérive. Moi, j'ai géré des pays où il y, avait, il y a eu des conflits importants. J'ai vu ce que ça a été. Alors donc, je ne veux pas que mon pays sombre dans cette situation. C'est pourquoi je demande à toute la classe politique, y compris ce gouvernement, en l'occurrence le chef, le président de la République, à revenir à la raison, que nous tous nous revenions à la raison, que nous tempérions nos ardeurs, que nous soyons ce que nous sommes, de vrais Sénégalais, tirés de notre culture, que les personnalités coutumières soient respectées. Je dis bien respecté kan moo fi amul sëriñ fii wax leen ma ko yéen ñi amu leen sëriñ bu ngeen di dem yéen ñëpp ku ci dem dem sukk ci si sëriñ waaw ñooñu na ngeen jox seen cër. ñaan ñu ñu ñu ci lii. parce que ci musiba lañ jëm. on va faire la version en français. Euh, oui. Qu'est-ce que vous pouvez euh, nous donner par rapport à ce que vous venez de, de, de, de subir, une audience ouais. euh, Qu'est-ce qu'on qu peut retenir concrètement de, l'audience Ce qu'on peut retenir, c'est que comme je, je vous l'avais dit la première fois, nous sommes en procédure judiciaire. J'ai été mis sous contrôle judiciaire, avec toutes les astreintes du contrôle judiciaire. je vous avais dit que respectueux des institutions de mon pays, parce que je ne peux pas avoir été ministre, Premier ministre, président de la commission de l'UEMOA, et ne pas respecter les institutions de mon pays. Donc fort de cela, l'institution judiciaire que je respecte, je ne peux pas aller à l'encontre de sa décision. Et c'est pourquoi j'ai dit que ce dossier, je n'en parle pas, je n'en parle plus. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai été interpellé, j'ai dit ce que j'avais à dire, à charge pour l'institution judiciaire d'en tirer la conséquence. Donc je ne peux pas en parler. Ce n'est pas de me faire revenir. Parce que dire je maintiens mes propos, c'est donc tu vous, vous, voulez me faire dire, vous voulez parler du dossier. Or je ne peux pas parler pas du dossier. Mhm. Voilà. Mhm.